no non non non eh, Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh bàyyi leen ñu def lu ñu bëgg a def yeah non bàyyi leen yeah Sénégal ah, man la assen Diouf encore xam nga maa ngi dem live direct xam nga waa digg yi ñoo ñëwaat sama kër xam nga nee nañ par force xam nga jox leen ma ko sama wax naa samay avocat wax naa ak ñëpp xam nga nee nañ par force dañuy dajji seen marto la ñu yor nag ak seeni bagage comprendre nga eh ndewali arrièreal fële bu leen bu leen def dara bu leen def dara bàyyi leen leen ñu def lu ñu bëgg a def bàyyi leen leen bàyyi leen leen parce que wax ñu ngi wax ak seen seen commissaire ci boppam bàyyi leen leen bu leen bu leen bu leen nekk di def dara non nañu dajji bunt bi parce que dañ dama am ay droit yeah dama am ay droit Soda Ba yeah yeah convocation dañ la koy jox wax la heure nga dem wuy ji yeah xam nga grand demal toogi demal toog yeah non non non non non non non non non non non samay avocat laa doon waxal léegi non non non non non leen non non non leen nii nii réew jaay doole lañ nekk dañuy jaay doole. jaay doole jaay doole la. jaay doole askan wi di war a nekkal. affaire jaay doole lañuy def nii nii rek. ñëw kër jaaw di dagg ay fii affaire jaay doole. convocation yooyu loo ko jox borom mu dem après muy wuy ji. dama réew jaay doole mu leen wax ba duñ def ñu def bu leen nokk waaw nañ dem ñu def ñu ñu Canada ku ci mën nag na war a yaar waaye du billaay damay wax damay wax damay def ku ci mën dina war a rey ku ci mën dama rey bu leen ko bu leen ko bu leen ko def dara lu ñaaw nag. non da ngeen sañ def dara lu ñaaw bu bu leen ko jaajëfale bu leen ko def. bu ko laal bu ko laal bu ko laal bu ko laal bu ko laal. réew jaay doole lañ nekk de jaay doole la jaay doole. réew jaay doole lañ nekk de jaay doole jaay doole jaay doole jaay doole jaay doole jaay doole dañuy jaay doole réew jaay doole lañ nekk réew jaay doole réew jaay doole lañ nekk léew jaay doole